ñëpp génn nañ. yàq suñu bagage yi yàq na daaw yàq nañ. amatul lenn lenn boo waxee nga def benn nit naa indi ay 200 mille nga ko jox nit ki defaraloo ko dara. ah suñu yaay yaa ngi ne ca mbedd ma toog suñu bagage yaa ngi ci tali ba amuñu fu ñuy jàll. ah ngir yàlla ngir yàlla Macky Sall yabalal ñu ko mën a liggéey ki nga yabal mënu fi dara defu fi dara. salaam mbokk maa lay fay. laaj tur bi lan la. Cheikh Ahmed Tidiane Diallo. Cheikh Ahmed di dund ndox mi parce que mu ngi commencé yàgg. jafe-jafe commencé métti yan motuwaay yi nga xamante ne tey état bi ñu war a mën a jàppale parce que tey liñ gis fi tey dafa ëpp. saa yaakaar dafa tas yaakaar amatul ci état bi parce que ñun daaw président ñëw na ba fii bu mu ñëwee fii nii gars yi dañu ñëw tëj génn ñu mun ko gis mun ko wax suñu problème est-ce comprendre tey boo xoolee ndox mi nii nii nekk fii nii yëpp dafa ñëw li si ëpp dafa ñëw du ndoxu taw bee def léegi kanaal bi moom mooy évacuer ndox mi mu ñëw suñu koñ. léegi ñun amatuñu solution parce que tey jii nii bu fekkente ne président ñëw na fi gis na li fi nekk maanaam ba léegi nii nii nii nii ñun am ñu saafara dañoo bàyyi ba nawet jot ñu commencé fii seen travaux ne dañuy canaliser te yàlla xam na ne daf ñoo sonal te gars yi du wax président li nga xamante ne moo nekk Kër Massar tey boo xoolee Kër masaar moo nekk secteur boo xamante ne mun naa la ne moo gën a populaire ci Dakar ba pare ñun ñuy dëkk di dund lii chaque jour chaque jour chaque jour mais ngir yàlla nañ bàyyi fonto bi liggéey réew mi ñëpp a ko dërëm bi dërëm gaal gi la kon nañ ko delloo ci gaal gi parce que tey inondation yi nii yomb naa am ñu xam-xam yenn xam-xam yi mais yomb naa régler mën na leen jox ay solution chaque année ñu ñëw jël fi impôt mais impôt boobu ñu ko delloowaat fi ñu ko jëlee defaat ko ci mbënd bi mais ñuy jël impôt bi di ko paajoo seen biir di ko séddoo mais nañ jël impôt bi nga xamante ne moom la ñuy ci Kër Massar ñu delloowaat ko ci Kër Massar régler problème euh, ndox mi parce que buñ nekkee fii dañ dañuy ut fond loolu dafa sori liñ jot a encaissé ci gox bi nañ ko delawaat ci gox bi lii dafa metti xam nga ñun góor yàlla sax mun nañ ko jaayante mais xoolal suñu rax yi suñu sanda yi mais tamit ngir yàlla nañu liggéey te bàyyi font bi quoi parce que jamono ji mënoo fee xayma xayma xayma xayma ba xam lu fi jot a yàqu am na ñoo xamante ne boo duggee tey ji seen néeg yi yéemu waxatuma la ñun ñi nga xamante ne dañoo nekk fii nii saa yi di liggéey parce que li yàqu dafa bëri quoi mooy loolu billaay wallaay góor yàlla mën nañ ko gérer mais suñu sanday ak loolu noonu day metti il faut que bi ngir yàlla fi sabilillah ñu xam ne réew mi moomuñu ko dañ leen kaa dénk ngir yàlla ñu jóg dimbali population boo fi amee malade nooy def na ngay def jigéen ji ëmb tey jii boo dee génn fii nooy def ah dafa metti quoi barki alxuraanu karim gaal gi nag ñëpp a ko bokk amul kii moo ko moom amul fii Sénégal santul Ndiaye santul Diop santul Diallo santul neneen mais ngir yàlla nañ dimbali population bi sonn leen. mais président ñooñu ñu bàyyi na fi li nga xam ne mooy 15 milliards pour ah, ngeen def ko si état d'urgence bi vite fait am ay poto pompe ak yeneen des. loolu yow saa yow loolu xel nanguwu ko 15 milliards lu doon 15 milliards ñu génnee ci mbënd bi ba tey ñoo ngi tëmb mais xaalis fa la dugg xaalis fa la ko waxante ne dee parce que xaalis bi maanaam fu mu waroon jaar jaaru fa. ministre Omar Gueye ban waaye ñun waxuñu waxu ministre président président moo fi ñëw suñu problème gën a yokku du ministre mooy ñu lijjanti lii nii il faut ñu jug ci lii il faut ñu jug ci parce que lii saay ñi fi jënd seen kër ay millions lañ ci def leneen ak leneen mel ni ñun ñu Sénégal gaa am na ñu ñu gën a sonn mais ñun sonn nañ saay fii paa yi fii ay trois heures du matin quatre heures du matin nga leen di gis ñu kërti kërti di defar pompe lii dañoo pompe ba pompe yi solo yëpp fay yëpp paan sapeur yi nekk fii boo waxee ñu ne leen c'est vrai que ni sonn nañ mais ndox mi yittelu leen te ñoom ñooy pomper ndox mi muy jóge fii di dugg fii kon ñun maanaam ñun ñun ñun ñun lan lay xanaa bokkuñ société bi mais ngir yàlla nañ ñu dimbali te bàyyi fontu bi fontu bi président Macky Sall waxuma yow da ngay fontu de te ñemee naa ne sax da ngay fontu mais waxal ak sa gaay nañu liggéey te bàyyi xolal marché yaa neex bi ñun dañoo sonn. dafa mel ne xaru kanam bi ngeen génnee tey ci télé bi tey. non mais tali ba sax ñun pare ñu booy insini kenn ku ci ne da ngaa nekk ci sa ruq di lijjanti sa kër pour dimbali sa yaay ak sa papa ñu bañ a tëmb mais buñ paree tali bi dinañ ko baare oto du jàll fii ak waxuñu ñun. dañuy wax ak ñun ñun lu ñuy baaree tali bi gënaluñu mais fa ñuy jëm. ay ñoo ngi lay fay. gis Kër Massar dikk boobu ak léegi yéen ngi dund li nga xam ne mooy mbënd mun mbënd bu méttee métti seen kër yëpp nekk ci biir ndox mi ngeen yàqule ci lu bëree bëri dikk boobu ak léegi mu commencé yàgg mu commencé diire parce que léegi mu mot at presque ban jafe-jafe ngeen dund. sonn nañu taay nañu dee nañu dégg nga li ma gën a naqari mooy tey 6 heures bi nuy xëy ndox mi amul amul ndox. ndox mi ñoom ñooy pompage fële ca kaw ndox mi di wàcc di ñëw fii fekk sañu yaa ngi dégg léegi problème boobu moom bu ñu pompé jaarale nañ fii kanaal bi léegi suñu jaarale fii canal bi ñun canal bi dun ci dara canal bi ñun dunu ci dara te canal bi ci suñu cité lañ ko jaarale bu buñ ko jaaralee ci cité bi xanaa du moins war nañu dugal raccordel ñu bu doon ñaari tuyaux sax baax na mais amuñu benn raccordement ñun bokkuñu ci kanaal bi bokkuñ tey bokkuñ ci ëllëg ba pare ñu jël ay ndox di ñu ko déverser fii ci cité bi pour lan benn. ñaareel ba ñaareel ba ñaareel ba wax monsieur le président nekk ministre mi waxuñu ko dëgg bu fekkee dañ ko ne Kër Massar ndox mi jeex na du dëgg du benn dëgg. dégg nga démb gis ministre Omar Gueye fan yëpp mu ngi fii maa ngi dégg ci télé bi ministre bi ne def na fi 15 milliards Camille Bass ñun Camille Bass amul amul ku ñu fi mës a dimbali paa yi ñu fiy dimbali paa yi ñooy def ñooy cotiser jënd gasoil soo ba tey li tax <laughs> gasoil machine bi takkul dañu amul gasoil léegi la ñu rak li cotiser waat jënd gasoil taal pour machine bi tàkk est-ce neex na te dañu yor ay malaat ci biir sunu jëkkër yi sont des retraités ku ci sa jëkkër xaaj bi yëpp dañu feebar ku ñu ku ci feebar tey léegi-léegi ñu la génne fan la ñuy jaar ci ndox moo xamante ni yàlla joxuñu ko ñoom ñooñu ko jox pour lan mais 15 ñu ñëw si loolu 15 milliards ba fi président ñëwee joxoon li nga xam ne mooy 15 milliards pour ñu jàppale ko en tendance ci canalisation pour ndox mi mën a gafe dem waaw léegi xaaral ma wax la li gën a gàtt li xam ma wax la a gàtt président Macky Sall bi fi ñëwee ah yaa may dégg président Macky Sall bi fi ñëwee. Mhm. dañu tëj maire bi ay gendarme la fi wàcce mu tëj ñu. amul fu ñu jaar pour gis Macky Sall wax sunu doléance. yaa ngi dégg kon ñuy lancer message monsieur le président ni que sonn nañu tàyyi nañu léegi nag maintenant tey moom dañ koy def tëgg ndënd ak la guerre c'est la guerre lu nu am waaw. ñu ñu am cër waaw. gis nañ tey force de l'ordre bari na fi trop tey ñu encadré nañ bañ ngeen génn baari li de l'ordre yi gën tey bari ah, di sécurité dañu bañ ngeen génn pour baari tëli bi la wax tey dama ni nañu la guerre c'est la guerre tey moom tey la tey duñu bàyyi dara parce que ba tey chaque année ñu xëpp ñu ndox mi suñu waxee ñu ne ministre bi ñëw na wax na waaw jeex na jeex na jeex na mais tey moom c'est fini. am nañ ay euh, yeew dafay génn. lépp a ngi fi sama buntu kër ay jën yu fees dell nga fa te xoolal xale yu sew yi nga gis yëpp ci cité bi lañ dëkk ah wallaahi xale yi sew yëpp ci cité bi lañ dëkk. tur bi la fàttali. man leena laa tudd leena. di sonn jaaxle at mu jot ñu nax ñu ñu dem gis nga. fii ñun suñu doole bopp la ñu demee suñu jëkkër yi ñoo jënd nga pompe bi yaa gis pompe bi benn état ma ñoo may pompe masu ñu ñoo may gasoil ñooy cotiser jënd seen pompe bu ñu paree ñu utaat suñu gasoil bu ñu pompee ba defee ne ñoo si ne ñu ndox yi jóge fee ak fële sa canal ba ñëw ñu xëppaatal ñu. est-ce que am nañ maire waaye. kan mooy maire bi ñun ñooy maire yi ñun amuñu maire ndax xamuñu maire ndax maire bi xam ne day ñëw fii di ñëwee population bi duñu dimbali maire bi bu ñëwee day xool finance seen kër seen lii maire bi dimbali ñun xamuñu ndax am sax ndax am nañu maire gis nga bi Macky Sall la ñëwee ñii problème bi concerné ay car lañu luwee fii la fii la ñu dugal ñooñu si biir ut ay barrière baare nit ñi pour ñu bañ a accéder si Macky Sall pour wax li ñu metti ñu fay ñeneen ñooñu di tàccu akaway ñi dund problème bi ñu baare leen ñu bañ a accéder si président la xam nga nu mu def sànq xanaa di si napp boppam si ndox mi daa jël boppam di si napp ba pare mu wane nee na def nañ fi 15 milliards fii 5000 francs sax dugg fii lu fi dugg ñun ñoo ko ñaqal suñu bopp suñu jëkkër yi jëkkër ñu amal 50 milliards pour assainissement 50 milliards 50 milliards taxaw ñu fi dara lañ fi deful defuñu fi dara canal bee nga gis nee nañ concerne ñu pour fële la waa waa mu ñu ko ñooñu def canal bi si biir cité bi jël kër goo xam ne cité bi la dëkk ba pare ñun ñu ñuy romb amuñu fi dara. lan bi. solution bi may ñu def fi defaraluñ ñu ba pare jël ndox mi ñu jëlee sa àll ba di ñu ko indil pour lan. ñu versé ndox ñu bàyyi ñu dimbali ba kër ba ñuy pare ndax canal bi ay nax la dara si dëgg. mel ni nga jël décision pour violence. bu baax dañuñu si dara dawuñu si saala yaay ndeer ñu nag ñoom ba géej gi fer dawuñu si dara waa Dakar Midi ak Midati tey ñu ànd di dox ci li nga xamante ne tey ci ndox mi nga xamante ne muy Kër Massar askanu Kër Massar sonn nañ lool gis nga waxtaan yi nga xamante ne lañ sekk ak ñoom mooy wax nañ ci li nga xamante ne tey mooy coono yi nga koy daj ci li nga xamante ne mooy ndox mi mais ñu ngi toog kenn koo xamante ne tey euh, kilifa la tamit ah, fii la dëkk boo xoolee kër yi bari tey sàmb mu ngi ci biir ndox mi nekk loo xamante ne lu mettee métti la euh, papa ñu ñuy bàyyi nga nuyoo rek euh, nga présenté wax ñu waaw euh, asalaamaaleykum euh, waa Sénégal euh, maa ngi nuyu monde bi yëpp bon vous voyez ce qui se passe fii li fi xew li xew muy ni yéen a koy gis ndox mi sonoon nañu lool loo xam ne mosu fi am et je dis que depuis que ñu commencé les travaux de Kër les travaux des chantiers de Omar Gueye là. Mm-hmm. si le problème bi commencé. à chaque fois on nous promet mais alors dina a tey dina jeex tey dina jeex mais lii mosu fi suma fii kër la fi ma toog nii sama kër la mais. kenn xamul nooy yéegee xam kenn xamul nooy duggee parce que si kaw amul may suuf yëpp ndox la def lii mus fi am tu de des millions sa kër investir ngay prêt nga nekk euh, euh, euh, prêt retraite alors sa xaalis yi yàqu noonu vraiment c'est pas intéressant c'est écœurant waaw ah. lu ñu wax rek dañuy fenn lu ñu wax rek c'est faux c'est assez faux parce que ñun joxuñu ñu mayuñu ñu cent francs ñu ñoo dajale suñu xaalis tabax suñuy kër mais bu voyez ce qui se lii moo am lii moo am. ngeen dundul métier bi muy commencé yàgg nag. mais mu ngi yàgg mu ngi yàgg man sama kër pour te dire que ça fait man j'ai fait fii fii plus de dix neuf ans mais mosuma am problème force ndox. mais depuis que affaire yi commencé si laa commencé di vidéo et fu mu nekk nii attends-toi que ne chaque semaine da ngay vidéo chaque semaine da ngay vidéo chaque semaine da ngay bi sax mais ce qui se passe lii lii lii xale fu ñuy jaar vous vous voyez mes sama tàngaay nii suma ko laaxee gis nga yëpp ndox mi moo ko yàq sama dànk yëpp a ko loo xam ne xaw ma ko parce que man xaw ma li am na ñoo xam ne xamuñu lii ah mais lii c'est écran lii lii nii dafa neexul neexul ku ne neex na tamit da ngay def da nga rek man maa ngi newoon chantier laa newoon léegi mais sama doom yi ñoom oo oh, ndox mi ñun moomuñu ko ndox mi jegoo cité bi bu voyez ndox mi la couleur ngeen xam ne ndox mi jegoo cité bi les moom moo fi ndox mi mais lii ñun mosuñu am problème bi Omar Gueye na ñëw waxaat nit ñi moo gën parce que lii lii lii mënu ko ne. saa yi damay damay gis Sénégalais yi bu image dañu naan fii du Kër Massar parce que lii dafa c'est trop. mais je te dis pas plus tard euh, même pas cinq minutes. j'ai un collègue mu ngi dëkk Aladji Pathé il m'a appelé léegi mais foofu c'est catastrophique foofu euh, euh, fële c'est catastrophique Aladji Pathé te principalement lii nga xam ne moom la kii waxoon Macky Sall Macky bi mu ñëwee def ne la cité Camille Basse. et eh, Alaaji Paate principalement loolu la la waxoon mais ñaari cité yi mu waxoon yooyu ñoo gën a catastrophique actuellement fi mu nekk nii boo demoon léegi wala je peux appeler waa Alaaji Paate ce qui se passe là-bas li aw fi xaw fi moo xaw fële oto mënul génne nit mënul génne mënuñu sax am pour demul seen daara ñun fa lañ jëm ñun fa lañ jëm nii fa lañ jëm nii ñun fa lañ jëm xamuñu fuñ jëm parce que actuellement fi mu nekk nii taw bi ñun ci même les pompes là ñu ñoo jënd ay gasoil pompe yi fi am yëpp état bi amu si dara yii yëpp ñoo ko moom. monsieur le maire waaye ban maire dof. waaye maa ngi leen di fay. la tribunal Ousmane Ndiaye laa tudd. Ousmane ndox mi sonal na leen depuis boobu ak léegi mu commencé yàgg sa kër ngi ci biir ndox mi tey bari yëgee nga. waaye du sama kër rek ñu xoolal kër yëpp si ndox maa ngi si biir xam nga ak niveau d'eau bi ni mu yéegee léegi problème bi mooy napp bi day yéeg donc day ball si toilette yi day yéeg bien que xoolal def nañu ay briques yooyu yëpp pour éviter ndox mi yéeg. mais il se trouve que c'est que man li ma si gën a naqari mooy y a des travaux ici ah ñuy def pour defar un canal mais travaux yi d'abord un dañ ko yéex a commencé de deux le ministre la Omar Gueye xaw ma lu muy wax du dëgg moom politique rek ah li muy wax naan ay léegi liggéey bi quatre-vingt-dix pour cent ak mais c'est pas vrai c'est pas vrai Macky Sall daaw la fi ñëw il est venu ici mais des têtes devaient tomber des têtes devait tomber ministre yu naaw ay directeur ADM yi c' est des gens yoo xam ni c' est des bons à rien laa la wax c' est des bons à rien. Macky Sall moom na fi 15 milliards. ana 15 milliards yi mooy lan mooy ñun lii mooy 15 milliards waroon na solutionner dara mais solutionner wul dara xoolal ndox yi ni mu mel fii ça c' est c' extraordinaire. ah ba pare les pompiers sont là ñu ngi fii sapeur pompier yi en face mais ils se soucient même pas que ndox bi nekk fii. fii nii il se soucie même pas il met duñ fi teg pomme dara seen yoon nekkul fii moom si Camille Basse ñoom daal ñu nga fële déjà non. waaye le maire moom ban jéego la ci doon. monsieur le maire je ne monsieur le moom mooy monsieur mais bu yow lu lu état la régler mais non ne parlons pas du maire le maire là il n'a aucun moyen mais il y a un ministère qui s'occupe de ça assainissement qui Omar Gueye nekk à la tête. mais ce type là il devait xoolal Macky Sall devait le foutre dehors waru fi yoon sax toogati lii avec sax lii am na fi daaw ren mu amaat de daaw bi mu amee moom ñëw na fi lu tax ñuy dagg de découper ay Kër Massar ko ay département ki ay ay def ko def mais lii la résultat bi mooy li non ça vraiment on est on est man je suis